merci beaucoup présidente euh, ñu lay nuyu di la féliciter ci présidence bi euh, di nuyu samay collègues honorables députés yi di nuyu ministres yi ak seen collaborateurs yi euh, di wax ñëw pour wax ci budget bi rek gis ne budget boo xam ne yokku na jógee 34 milliards dem ci 42 milliards donc ak programme ñu ci nekk di communication technologie et économie numérique post bi ak pilotage gestion et coordination administrative mais man nu ma gisee ministère bi ak nu may dégloo politique bi dafa mel ni da ngeen jàppee ci liggéey au lieu de ministère de la communication mais dama jàpp ni dafa mel ni c'est le ministère de la censure et de l'agitation propagande parce que su may naan censure ak agitation propagande euh, moom nañ doon gis dans les pays en tout cas totalitaire nga xam ne euh, du ñu bëgg liberté d'expression du ñu bëgg également liberté de la presse tey da ngeen am benn problème nguur guy jeex souvent day jàpp ni dafa am problème de communication oui on communique mal on doit mieux communiquer ah dañu war a wut ay débatteurs yu baax soo xoolee sax la plupart de vos ministres c'est des débatteurs Donc on a pris des débatteurs qu'on a nommés ministres. Mota, ça ne marche pas trop, ils sont plus sur les plateaux que dans leur cabinet. Donc, mais votre problème, ce pas la communication. Votre problème, c'est l'impopularité. Parce que vous avez échoué. Vous avez 12 ans. Chaque année, on a voté un budget. jaglel avez ay moyens, jox avez ay ressources humaines. Mais ngeen avez Bon, c'est fini, il vous reste trois mois. Donc, euh, il faut quand même partir dignement, partir sereinement, sans s'énerver, bagnamère. Donc, euh, et garder votre calme. Parce que tey l'outar morco, souvent vous vous trompez de colère. Donc, euh, il y a allergique à la contradiction, vous êtes réfractaire à la pensée plurielle, pensez que le devrait le régler par la force, tëj ay journalistes je parlais de Pape sane Pape Sané de Walf couper ay signalu télé réprimer des libres penseurs surtout quand ils ne sont pas de votre côté parce qu'on a vu le président recevoir des insulteurs patentés certifiés qui ont été reçus au palais et qui accompagnent la communication présidentielle te ay saagakat nañu léegi est-ce que saagakat yooyu ban différence la ñu am ak yeneen saagakat yu ngeen di kii il faut nous expliquer pour population yi mun a comprendre donc tey malheureusement comme la jeunesse vous a tourné la dos da ngeen ne on va réprimer la jeunesse la jeunesse vous a répondu léegi en ébig en en sortant du pays parce que mënoo leen réglé woo leen problème mu nit ñi ba pare xañ nit ñi jàmm bëgg leen tëj ku wax ngeen tëj ko kenn mënu fi tu fi wax dara en plus tey nga jël Euh, lu mel ni RTS RTS pratiquement nit ñaa ngi koy woowee Racine Talla Sall parce que tu as l'impression que bon c'est l'éternel DG et on ne parle que de Macky Sall et de ce qui est favorable à Macky Sall ça ne reflète pas le Sénégal le Sénégal c'est la pluralité le Sénégal c'est la contradiction le Sénégal c'est la démocratie donc tey RTS n'a rien à envier à KCTV KCTV c'est la chaîne de télévision nord-coréenne à Pyongyang parce que vraiment c'est la pensée unique censurer nga TikTok il paraît mais TikTok ñëpp a ngi koy utiliser donc ça n'a aucune utilité je vous remercie